CRSD cadre des religieux pour la santé et le développement di yëngu ci wàllum espacement des naissances maanaam moytu neef moo di may santé de la mère et de l'enfant aoudu billahi min alsheytani irrajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين مبكي ني توب تيليسبيكتاتور يني سيور في تي تلفزيون RMB TV بي تي في نيغي دي لين زياره دي لين بالو حق di leen ko baal tey ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal seen xarit seen soppe al imaam alxaaji ahmadou baro njegéen moo ñëwaat ci seen émission lépp diine tabarakallahu fii ci rmb tv ñu ngi ziyaara tabarakallahu mboolem ku ni topp ci émission bi waaye ñu ngi nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ci wàllu diine di ñaan yàlla képp kenn fa nga nekk tabarakallahu yal na yàlla dolli la tawfiq Euh, noonu it lañuy ñuy ziyaara ñi nga xam ne ñooy kilifay aada yi li ko dalee ci président de la république ak euh, ñi nga xam ne ñoo gën a tuuti ndombal tànk ci ñu ko yàlla dénk ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm euh, tabaarakallahu naal yu baax yi nga xamante ni ñu ngi koy naal lépp war a nekk njariñu réew mi yàlla na yàlla mottali leen. seen émission tabaarakallahu niñ ko daan defee tey dañoo demaat ci suñu kër gu tedd googu nga xamante ni mooy tabaarakallahu CRSD. muy cadre des religieux pour la fan santé et le développement macha allah comme ni ñu daan defee suñu taxawaay yi euh, ci santé des adolescents ak itam nag lii ñuy wax muy planification familiale. waaye tey it tabaarakallahu dañoo dugg ministère de la santé macha allah ndax yàgg na wax seenu lëkkaloo ak CRSD. waaye it ñu nga fay ànd ak tabarakallahu ci biir ministère benn kuréel bu ñuy wax DSME muy direction de la santé pour la mère et de l'enfant ah, ñu ngi ci ànd it tabarakallahu ak sunu xarit sunu soppe di sunu jigéen muy soxna Ramatoulaye Camara soxna Ramatoulaye ñu ngi lay nuyu ah, di la ziyaara bu baax ah, di la baalu xaq di la jéggul it ci coono yi ndax tey ñëpp xam nañ ne dëkk bi macha allah dafa taw bari ndox waaye teewul tabaarakallahu euh, arab yi dañu wax ne alxurru xurrun maa lam yatakallam maanaam gor moom gor rek lay doon bu kàddoom ba xasee génn rek moomatu ko tey xam nañ ni loolu dal nañ la ndax xam nañ sa taxawaay ci liggéey bi ñu ngi lay dalal bu baax ci sa émission lépp Diine jërëjëf imam maa ngi nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant mm-hmm. di nuyu euh, jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne mooy sunuy kilifa. Mhm. ba ca ministère de la santé. Mhm. di docteur Doucouré. Mhm. Euh, toftal ci docteur Ndeye Awa. nga xam ne moom moo yore direction euh, division lépp lu jëm ci mbirum planification familiale. macha allah mais du ma fàtte it Mm-hmm. autorités yi nga xam ne ñooy mooy direction wu RMD TV. Mm-hmm. nga xam ne tey ñoom ñoo ñu dalal tey ci émission bi. macha allah pour ñu mën a waxtaanee bu baax xuus bu baax ci mbirum santé. Ah, macha allah jërëjëf soxna si ñu ngi lay ñu ngi lay fay nuyoo. Mm-hmm. waaye comme ni nga ko defee it balaa ñuy dem dina dinañu nuyu euh, li jiitu mooy waa CRSD. xam ne sunu président mooy Serigne Salih Mbacké. Eh, moom it ñu ngi koy ziyaara bu baax di ko ñaanal ak mbooleem kuréel ba maanaam kër googu nga xam ne CRSD eh, nga xam ne vice président eh, Serigne Bou Mouhamad Kunta ak sunu bàjjen sunu yaay Hadja Aram Seck ak yaa Seyda Roqiyatu Thiam ak sunu frère ya fa nekk ñëpp rek ñu ngi leen di ziyaara waaye noonu it la ñuy demee DSM ñu nit ñu daal di ziyaara monsieur Doucouré tabaarakallaahu mi nga xam ne mooy dinañ ziyaara it sunu xarit suñu soppe Serigne Mor Diène ak Serigne Maas Samba Sall ñoom ñëpp nuyu nañ leen soxna Ramatulaay tey yow yaay ganu kër gi macha allahu ni niñ ko waxee rek ñu rafetlu sa taxawaay loolu ci liggéey bi ba mooy sababu ñu sàkku nga ñëw ànd ak ñun fii ci euh, waxtaan bi euh, tabaarakallahu balaa ñuy dem kan mooy soxna Ramatulaay Camara ak ban taxawaay la am biir DSMA jërëjëf imam mhm. euh, Ramatoulaye Camara mooy nit ku xeebu gi ngeen gis mhm. mu ngi euh, ci ministère de la santé mhm. euh, plus précisément division direction de la santé de la mère et de l'enfant division bi ñu naan division planification familiale macha allah maa ngi fa doon li ñuy naan coordinatrice SR mais en même temps yore lépp loo xamante ne moo jëm ci jëmale kanam mbirum planification familiale ci niveau communautaire mooy niveau bi nga xam mo gëna touti ci système de santé bi d'accord donc taxaway googu la fi yor mhm. mais au delà de cela également ma ngi yore ben programme bu ñu naan école des maris mhm. mooy euh, danaka kurel la bo xamanteni daf ñi permettre ñi waxtaan ak euh, borom kër yi ci lépp lu jëm ci wérgu yaram yaay ak doom mhm. plus particulièrement lu jëm ci mbirum planification familiale inshallah inshallah ah, jërëjëf lolu taxaway bu kawé la bu am solo ndax ñun euh, jot nañ ci xam dara ndax léeg ñu déggante te bari na lu ñuy lu ñuy déggante fekk la biir ndakaaru yaa ngi ci tabaarakallaahu terrain bi rek macha allah tey moom xam naa yàlla moo ñu wërsëgale lii <laughs> waaye ñun xam nañ ni lu jafe ci yow la ah, ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla gën a dëgëral taxawaay boobu waaye xam nga soxna si comme li ñuy wax DSME mm-hmm. ak CRSD dañoo dañoo lëkkaloo mm-hmm. waaw lëkkaloo boobu xam naa ni du ñàkk euh, war na am sabab mm-hmm. ak lëkkaloo bi kañ la tàmbali ak lëkkaloo bi lan la jural waa ministère de la santé. waaw CRSDD suñuy partenaire la suñu mm-hmm. partenaire yàgg lañ mm-hmm. su ma juumul yaakaar naa ne euh, CRSD ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko teg mm-hmm. en 2014 tëral kuréel boobu kuréel boobu ñu ngi ci dajale lépp luy religieux ñuy mhm. kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci jullit gi mhm. mais waa kër jàngu yi tamit dañ cee bokk parce que ñoom ñoo ñuy jàppale tey mhm. bu population bu ñu waxtaan a population ci lépp lu jëm ci mbirum wér-gu-yaram ñoom li jiital Mhm. parce que nit booy waxtaan ak population te waxtaan ak kilifa diine yi. Mhm. yenn saa yi dana sooxee tuuti pour mhm. population mën laa déglu. loolu tax nag collaboration bi nga xam ne am nañ ko ak waa CRSD. lu yàgg la lu dugg la te wax dëgg yàlla macha allah. seen taxawaay rafet na. parce que ñoom ñoo ñuy jàppale ci lu bëri. surtout ci kilifa diine yi parce que yenn saa yi programme de santé boo ko tëralee. boo demee liñ leen njëkk a wax liñ leen njëkk laaj ndax loolu diine nangu na ko. donc fekkente ne borom diine ak mhm. borom xam-xam moo ci wax mhm. yaakaar naa ne ci lay gën a neex a dégg ko koo xamante ni ku mhm. xeebu la ko man macha allah dëgg la ah, allah ndax euh, soxla si xam nga euh, waa ministère de la santé bu ñu lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu diine loolu lu jaadu la ndax euh, tabaarakallaahu xam nga dama koy wax fu ne danaay wax ni léeg-léeg diine dafay toll foo xamante ni sax dafay bàyyi Euh, ministère maanaam ñi yor wàllu wér yaram jël seen responsabilité parce que yéen ñu ñu war di déglu ngeen. Mhm. parce que tamit balaa ngay tal sa diine wala ngay tal leneen faaw nga am wér yaram bi ba pare d'abord moo tax bari na may joxe ay exemple yoo xam ne bari na yu xew ci réew mi ci ay feebar yu ñëw mhm. bu boobaa diine ah dañ naan nañu déglu ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wirgu yaram kon yéen seen taxawaay ci réew mi ala kulli xaal mënut a ñàkk mhm. wante daan nañu dégg ci ministère ñu def ay xayma ci li nga xamante ni yàlla daan na dogal ñuy faatu ci mbirum nef amoon nañ ci xayma léegi bëgg nañoo xam aussi xayma ba naka la woon wala bu fekkee weneen xayma amaat na ci diggante bi ak tabaarakallaahu fan la liggéey boobu toll macha allah waaw jërëjëf imaam mbirum xayma yooyu xam nga tey ministère de la santé buy saytu surtout direction de la santé de la mère et de l' enfant day saytu lépp loo xamante ne moo jëm ci wér gu yaram yaay ak doom donc kuy wax wér-gu-yaram yaay ak doom day wax tamit ci lépp loo xamante ni moo jëm ci ndeeteel gi. Mhm. parce que tey bu ñu naan ministère c'est pour ñu mën a xeex ndeeteel googu muy ci yaay ji muy ci xale yi. Mhm. ndeeteelu yaay jooju amoon na fay jëmmi jamono euh, ci daanaka junni boo daan jël. da nga di daan fekk cinq cent wala xaaj bi. Mhm. xaaju junni ga. daanaka dañ daan faatu. ci diggante ëmb. ak imbi ak la ciy topp. donc loolu taxoon ñu ne ah il faut ñu tëral ay programme yoo xamante ne tey mhm. dinañu dimbali ñu wàññi ndeeteel googu kon junni xaaj bi mooy juróomi téeméer juróomi téeméer juróomi téeméer ak la daan teg moom lañ daan am ci ay faat ci ay jigéen ñu doon loru mhm. ci diggante ëmb ak que ñu xam ne kat lii bu jëmee kanam mhm. en tout cas société bi dina ci am lu mu ci lu mu ciy sentir ndax lu ñuy wax jigéen base société la donc tey il fallait que ñu tegal ay tëral ay programme yoo xamante ne ñoo ñuy jàppale ba ndeeteel googu wàññeeku alhamdulilah. Mhm. ay kuréel yu mel ni CRSD. Mhm. ak ñeneen ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi liggéey ak ñoom ñu ngi lëkkaloog ñoom ak partenaire technique ak financier yi nga xam ne ñoom la liggéey noonu. Mhm. jàppale nit ñi bu baax. ba tey xayma boobu. xayma bu mujj bi ñu mujjee def mooy euh, bu deux mille vingt trois bi. mu ngi xayma affaire yi ci ay cent cinquante trois. donc jógee nañ ci téeméeri nangam. àgg cent cinquante trois. macha allah te pourtant 2019 ñu ngi ko xayma woon ci 234. léegi kon jóge ngeen ci junni ya yéen a ngi ci téeméer ak lu teg. non junni ba. waaw junni ba moom mooy base bi. junni jigéen ñu yosin. waaw junni jigéen ñu yosin. Mhm. jàpp nañ ne tey. Euh, ñaar fukk juróom téeméeri moo doon. faatu bu doon mu njëkk ba. waaw bu njëkk ba mais jamono ji 153 lañ nekk. mooy junn bu nekk. Mhm. am na téeméer ak. Euh, juróom fukk ak juróom fukk. ak ñett ak yu toftal. moom ñoom ñooy ñoom ñooy faatu tey. Mhm. maanaam jóge nañ ci junni yi. Mhm. xaaju junni ga. kon daal léegi wàññeeku na bu baax baax a baax. wàññeeku bu baax a baax a baax mais ba tey des na. parce que bu ñu sañoon tey jigéen bu nekk buy wasin mhm. di nga wasin ak jàmm um uuf sa doom mhm. yóbbaale donc loolu mooy suñuy suñuy bébét am nañ yaakaar ne bu ñuy continuer ci sensibilisation bi continuer ci jéego yi nga xam ne moom la ñuy tëral war nañoo mën a am résultat ci loolu macha allah macha maanaam kon yëg ngeen ni daal lëkkaloo bi ngeen lëkkaloo ak CRSD ak ñu mel ni ñoom maanaam yéen a ngi ci yëg seen bopp ci sensibilisation bi ngeen bëgg muy jàll ci askan wi ñu ngi leen di sentir bu baax macha allah ñu ngi leen bu baax ma jàll ci mbirum planification familiale parce que bokk na ci ponk yi nga xam ne dénk nañ ko CRSD. Mhm. parce que tey jàpp nañ ne planification familiale ci ay xayma ci junni boo jël. Mhm. Euh, fanweer juróom yi. Mhm. ci junni junni junni euh, DTL boo jël. fanweer ak juróom yi euh, planification mën na koo wàññi. donc pour wane taxawaayu planification familiale ci wàññi DTL yaay ak doom. mais loolu pour mu mën a nekk. Mm-hmm. il faut ñu ànd ak suñuy kilifa diine yi. Mm-hmm. ànd ak suñu kilifa suñu aada yi. Mm-hmm. ak administration bi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal. ku nekk da cee war a def loxoom. te partenaires ñuy jàppale te CRSD bi ngay wax noonu. cadre des religieux ñun amuñu seen fay. parce que bi ñuy lëkkaloo bi commencé 2014 ba tey mm-hmm. yaakaar naa ne ñoom jéego yu bëri def nañ ko ci terrain bi mm-hmm. Mm-hmm. waaw lu ñu yëg ak lu ñu yëgul te wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na ci donc ñu leen di ñu ngi leen ci remercier à travers yow mi xam ne yaa leen fi teew wallaay ñoom tabaarakallaahu ay ay jàmbaar ñoo fa nekk te li tax cadre bi am solo mooy dañuy wax ni réew mi di réewum Sénégal bépp këru diine bu fi nekk am nga fa représenté te représentant bi aussi dafay nekkul rek lu ñu làmbatu maanaam dafay nekk koo nga xamante ni ca këru diina ba xalifa bi moo lay reconnaître dénk la waa de kon ña fa nekk ñëpp noonu lañ fa nekkee wax nga ko sànq ci sa biiru wax. Mm-hmm. nga xam ne bàyyiwuñu benn diina ba ci jàngu bi. Ah, am nañ fa ñu leen fa nekkal. Mm-hmm. te itam nag ñu nekk ay borom xam-xam ñoo nga xamante ni dañoo gëstu bu baax. Mm-hmm. lépp lu ñu war a wax ci lii di planification familiale dafay fekk ci diine lañ ko jëlee moo xam alquran. moo kam xadiis yontu yàlla muhammad moo xam waxi borom xam-xam ñi ñu yàlla dénk moo tax ñu ngi leen di sant bu baax noonu la ñuy sant waa waa ministère mhm. waaw kon daal euh, yéeg nañu daal boobaak léegi am ngeen euh, yëg-yëg bu baax ci ci ci ci ci xayma bi mhm. su ko defee soxna Ramatulaay li ñu lay laaj mooy euh, ndax planification familiale fii mu toll Euh, bu ngeen ciy woo jigéen ñi rek ngeen ciy gën di jaxasool di waxtaane wala yéen da ngeen di soxla couple bi maanaam euh, góor ku góor ki ak ku jigéen ki maanaam ñan ngeen ëpp ñu ngeen di waxal ci ci ci jëf jooju. waa kay am nga amoon na ay jamono yoo xamante ni waxtaan bu bëri li ñu doon def ci mbirum planification du muy dem planification lépp lépp lu jëmoon ci wérgu yaram jigéen mm-hmm. dañ ko daan féetali jigéen ñi dañu naan yëfi jigéen la bañ nañ ko ba bu ñuy dem wax waxi maternité dañu naan ah yëfi jigéen la mm-hmm. Mm-hmm. déedéet ay way dencante ñooy koy sikk donc way dencante yi il faut ñuy wax ak ñëpp gis ngeen sàng ba may présenté wax naa leen mbirum li ñu naan école des maris mhm. parce que dañoo gis ne bu ñu yàggee di waxtaan ak jigéen ñi te ñoom jëluñu décision parce que tey ku nekk yaa ngi yor sa kilifa sa kër mhm. donc kilifa googu mooy jël décision mhm. te kilifa gi bu buñ ko yeewul ci yi nga xam ne mooy sensibiliser sensibiliser ko ci lépp lu jëm ci wér-gu-yaram day sooxe donc ñu ne ah nañ tëral programme yoo xamante ne dinañu permettre ñu wax ak góor yi Mm. kon nañ leen ni gën a jege pour yee leen ci lépp loo xamante ne moo jëm ci wér-gu-yaram soxna si mm. mais wér-gu-yaram tamit xale yi ci kër gi parce que bu mm. ko xamee ci lay engagement am di gën a gën a baax loolu tax na ñu tëral euh, stratégie boobu noonu lëkkaloo ci ak euh, waa ministère de la femme

parce que dañuy wax ne na ko na nga ko na ko dëkkal na ko dëkkoo na ko wodd bu feebaree nga faji ko mhm. nit ki nag pour nga faj ko faaw nga xam lan mooy feebaram mhm. kon nag day jaar bu nekk léeg-léeg bu dul bés bu ne sax bu sa soxna di dem ci médecin bi wala nga ànd ak moom su ko defee yow it la mu fay jëlee nga am ci loo xamante ni dafay jóge ci gémminu médecin ci sa nopp boo ñëwee ah, defe naa taxawaay bi dina dina dina kon nak lolu ñu ci ciy woo mbokk goor ndax ñun ñi nga xam dañuy nekk ci terrain bi sax woote yi ni woote da ngay gis jigéen ñi rek ñoy wuyu ci goor ñi ñu neew ñoo ci wuyu ci parce que xam nga dañoo yag yaakar ne miru maternité jigéen ñi rek jigéen ñi rek la d'accord bopam ngi metti nga ah yefi jigéen la na dem jigéen la na dem yefi jigéen na dem mais nak yefi jigéen lu mu ci doon mm. bu feebaree ordonnance bi ci yow lay dellu si wallaay dëgg donc faaw nga top ci xam lan moy metti lan mm. lañ ko lañ ko lañ ko digal bo xolé sax da ngay xam du yefi jigéen yefi yëfi góor comme ordonnance bi ci yow lay ñëwaat ci yow lay mujjee te bu feebaree it am na luy soxé ci kër gi donc lool tamit ñëpp ko yëg mm-hmm, donc il mm-hmm. faudra aussi nga ci góor ñi xam ne mm-hmm. sen seen taxawaay dañ ko soxla dañ ko soxla ci mbir mi c'est vrai que nak sensibilisation bi desoon na lool parce que goor ñi peut-être xam nga ñak xam mo lay tax def yéen parce que tay bo teree tere sa soxna dem hôpital pour faju wala nga tere sa soxna dem defi planning wala tere sa soxna dem sax boy wosin ci biir hôpital c'est parce que ñak xam la donc il faut que sensibiliser sensibilisons, ñu kat mhm. nga nekk ci fréquentation structure de santé mais bu tamit nekk ci yi nga euh, mhm. d'accord mhm. d'accord jërëjëf soxna euh, man euh, planification familiale il faut nga nous ñu ba xam nga ñu bari buñ ko déggé ñom sens biñ ko jappé rek moy côté arrêté mais tey est-ce que loolu rek mooy planification familiale maanaam couple bi nga xamante ni sëy nañu ñu toog ab diir. Mhm. war a am njaboot te amuñu ko est-ce que ñooñu it lan la leen ministère bi conseillé. waaw xam nga ministère de la santé bi ñuy tëral euh, planification familial ñu bëri dañoo jàpp ne mbirum soril jur la. Mhm. wala mbirum arrêté jur. Mhm. mais ñun programme Sénégal ni mu ko jàppee mooy espacement de naissance mooy soril jur. mooy njur bu ñu ko bëggee xayma dañ ko war a diggante ëmb ak bi mhm. ba ci beneen doom ba ciy toftal mhm. war nañoo mën a xool nan ban espace moo ci baax boo mhm. xamante ne du lor yaay mais du lor xare bi tam léegi yéen ban espace ngeen tànn espace bi xam nga am na loo xamante ni euh, organisation mondiale de la santé da ko tëral tuddee ko PEX moo xamante ni moom moo tëral ne tey planification familial pour espacement de naissance bi nga xam ne moo gën jigéen bu wasinee war naa toog lu mu néew néew ñetti at ñetti at mais ñetti at boo ko xaymaa daanaka ñaari at yi ci nàmpal la mm-hmm, mm-hmm. boo ci tegaatee daanaka neuf mois yeneen i grossesse ñetti at ya mat mm-hmm. donc dañuy may xale bi le temps mu nàmp nàmp gu normal goo xamante ni tey dina ko permettre mu dëgër pour nga yaay ji di mën a jëlaat beneen ëmb donc loolu benn la espacement de naissance idéal yooyu tamit nee nañ bu bëree ba bëri na yem si juróomi at surtout si jigéen boo xamante ne dafa toll ci jur. dafa ci jur donc ñetti at mooy gën a néew mais juróomi at mooy li nga xam ne. Hmm. moom la sante jàpp ne. Hmm. lii boo toogee juróomi at noppalu. Hmm. war ngaa mën a jëlaat am am na xamante ne nag seen wér gu mën na leen permettre. ñuy gën a yokk loolu. dépassé cinq yi maanaam est que toogaay bu yàgg boobu. maanaam bu ñu toogee juróomi at wala lu ko ëpp. war a war a amaat ëmbaat pour keneen. dafa da ngeen yaakaar ni rek mën na leen jural beneen conséquence quoi. non amul conséquence xam nga dañu leen naan lu idéal lu idéal mooy li gën. li gën d'accord. xam nga tey bu ñu naan lu gën lan moo gën. Mm-hmm. ñu ne ah lu mu néew néew na nekk si ñetti at yi. mais bu bëree ba bëri. Mm-hmm. bu mu dépassé juróomi at. Mm-hmm. parce que jàpp nañ ne xale bu ñu magantee juróomi at sax baax na. d'accord parce que baax na ci moom baax na ci yaay mais nag su weesoo juróomi at parce que am na jigéen ñoo xamante ne seeni wér gu yaram. wala seeni situation tax na ba dañ leen yokkal juróomi yi. Mhm. parce que ku nekk am na am na loo xamante ne yaa ngi koy làkk sa biir te mënoo ko wax mhm. am na ñoo xamante ne juróomi at yi sax dañ leen di conseillé ñu yokkaat ci parce que xam nañ ne peut ëmb ak imbi mhm. arrangé wu leen ci jamono yooyu parce que baaxul ak seen seen mais nag li nga xam ne mooy idéal bi mooy li gën mooy diggante ñetti at yi ak juróomi at mais du tee tamit jigéen boo xamante ni par exemple dafa na lor ëmb bi tuur foofu tamit am na ci espacement idéal boobu li mu ci wax mooy lan mooy jigéen boo xamante ni bu bu bu euh, bu bu amee avortement. Mhm. mooy ëmb bi tuuru. Mhm. war na toog lu mu dee dee dee. Mhm. na toog 6 mois. balaa moo jëlaat beneen ëmb. d'accord parce que dañuy jàpp ne ëmb fu mu dañ. dafay bàyyi góom. donc 6 mois yi jàpp nañ ne bu 6 mois yi jàllee. góom boobu dina mën a tëju. ba beneen ëmb bu ñëwee taxaw mën a mën a mën a am chance su chance normal donc loolu tamit bokk na ci li nga xam ne. espacement idéal bi da ciy wax. leneen li mooy lan mooy xale yi. mooy jege maari mm-hmm. parce que ñun jàpp nañ ne teel a sëy teel a am doom mën na doon gàllankoor ci wérgu yaram ku jigéen ki donc ñun jàpp nañ ne tey xale bu jigéen boobu war naa mën a toog au moins ba am 18 ans soog a soog mën a tàmbali am doom mooy première grossesse nu mu ko nu mu ko gën a retardé mm-hmm. mu gën a baax parce que dañuy jàpp ne ay cëru jigéen du gaaw a mat mm-hmm. donc c'est pas parce que gis na règle ay ci mat na. Mhm. bu gisee règle am na yeneen euh, élément ci ciëri yi. Mhm. yoo xamante fa lay tambali di liggéey. Légui nak euh, pour soir ci programme planification familiale parce que ñu ngi doon wax ci affaire espacement de naissance. Mhm. mais bu espacement de naissance weesoo parce que tay programme sénégalais ñetti mbir la jël en charge. ci mbirum planification. benn bi nag lañ xam. wala moom la ñuy gën a dégg. mooy espacement de naissance mais bu weesoo loolu am na li ñuy la lutte contre les infertilités et infécondités. mooy ay way dencante yoo xamante ni toog nañ diir bokk seen kër. Mhm. te gis nañ ne ba tey soxna si mënul jël ëmb. Mhm. donc foofu tamit am na ci ay jéego yoo xamante ni programme bi da koy teg pour mën leen a jàppale ba ñu mën a am takkandeer.

Euh, yéen a ngi conseillé jigéen daal bu xasee ba am njaboot bu ëmbee ba wasin lu mu bon bon na toog ak ñetti at xam naa ni alquran sax fekk si ne leen ci mm-hmm. ndax euh, yàlla day wax ne wal walidaatu ni awlaadahunna hawlayni ni mm-hmm. maanaam way jur yi nañuy nàmpal seen doom yi ñaari at yu mat sëkk su ko defee ñuy doog a yu mel noonu mm-hmm. boo ko nattee ak fi mu euh, nàmpalee ñaari at fi muy jëlaatee ëmb kooku boo ko kiyee day nekk ñetti at donc waaw ah, bi ci toppit mooy wax nga ni euh, yemu leen dong ci ñi nga xamante ni dañuy def espacement de naissances mais ñi nga xamante ni toog nañu ab diir ba yëg ni jaadootul ni kat ndaw si wax dëgg yàlla war na jël ëmb donc ñooñu it yéen a ngi leen di woowaat ci seen bopp pour bu ñu ñëwee ngeen xool yoon bu ñuy jaarit ba yàlla dénk leen njaboot dégg nañu it ci wax ji ne waxu leen aussi limitation des naissances maanaam espacement ngeen wax maanaam tey yéen cautionné wu leen couple bi nga xam ne dañoo ñëw ci yéen ne ah ñun kat dañoo bëgg a sëy waaye bëgguñu am doom. Mm. defe naa loolu yéen nekkul ci loolu ngeen di woote wala am ngeen ci. waaw ñun duñu duñu duñ ci woote. Mm-hmm. mais xam nga nit ki ku nekk yaa xam sa biir. Mm-hmm. donc yow yaay ñëw solliciter service de santé. Mm-hmm. xam nga service de santé bu lay sensibiliser da lay naan ah espacement idéal a ngi nii lii gën a ngi nii. mais ñoom ñi nga xam ne ay way dencante la waxtaan ba juboo ba ne ah man de wax dëgg yàlla. Euh, situation bi metti na ci kër gi mhm. nañ muñalante tuuti balaa ñuy amaat beneen mhm. woy laa ah ñun day wax dëgg yàlla macha allah ñu njaboot nañ nangam mhm. ah nañ ko fi yemale mais loolu engagement nit ki la ñoom ñoo koy tànnal seen bopp mais ñun programme de la euh, programme euh, planification familiale ñun doxuñu ci loolu ñun espacement la ñu wax mooy au moins ñu may xale bi màgg yaay ji mën a wér ñu mën a am harmonie bi nga xam ne moom la ñuy laaj ci couple yi mais bu loolu moom wax dëgg yàlla ñun ci espacement bi la gën a jëmatu maanaam kon maanaam Jigen ji bu ñëwé ci soxna Ramatulaay ne man kat dama bëgg a arrêté sama njur mm-hmm. ak jamono wala gu yaram wala yu mel noonu mom mm-hmm. Ramatulaay daf koy defal ci saasa wala daf nan ko ah nga wo woo sa borom kër ñu waxtaane ko xol ba xam déedéet bu dé affaire arrêté njur mm-hmm. arrêté njur bu dé arrêté njur ñu dañ koy xayma ci gu yaram bu jigen gi parce que amna jigen xamanteni ëmbaat waru len d'accord parce que sen santé permettre mais même fu ñu nalé tollu fofu tamit dañuy wo borom kër gi parce que du doon loo xamante kenn ki mu koy jël décision bañ nañ ko ba dañ lay signé lo sa kayit mm-hmm. d'accord bu dee affaire affaire arrêté ndiour mm-hmm. dañ lay signé lo kayit pour wane na ah, effectivement. Mm-hmm. ñaari way dencante waxtaan nañ ba juboo ah wax dëgg yalla wër gu yaram ku jigéen ki permettre ko mu jëlaat ëmb. nañ am luñ ci def. donc loolu mom programme bi da koy def mais nak ay cas yu raar la yoo xamante ni ay situation moo koy moo koy tëral mais lii nga xam ne moo wóor ba wóor mooy ñun li ñuy proposé mooy nga nga noppalu diir mhm. dellu si waat jëlaat ëmb ñu gérer waat ëmb bi pour loolu sage-femme dootuñu liggéey ndax sage-femme <laughs> ko tax a jóg voilà euh, léeg-léeg ma wax ne ma ne dafa am loo xam ne xel dafay nangu mhm. ndax comme man xëy na yàgguma ak waa ministère waaye maa ngi bëgg maa ngi leen di bëgg a miin dëgg la ndax dinaay dégg léeg ci seen i exemple ñu ne Ah, dafay tollu ci 7 cm mhm. muy bobu boobu mooy mhm. njurukaay. Mhm. voilà su ko defé nak bu ëmbé ci lay taawee ko di taawee ba dem 30 et quelques cm lolu nak ci xel dong war nga xamné bala balaa muy mëna recevoir at lenen war nañ ko bayyi nak mu delu fa mu ba paré pour recevoir lolu mom budul dara sax xel ala kulli hal daf koy ma sha allah ñu ngi leen di jaajeufal ndax tamit liggéey bu metti la. ndax tollon na jamono jo xamné kenn mënu ko dégg planification familiale. waaye fi ak seen lëkkaloo ak CRSD ak yenen kuréel yu ni mel mel na ni yàlla mu ngi def sutura nit ñi ñu ngi parce que commencé di dégg wax ci ndax bari na fooy dem euh, surtout ñun euh, causerie yi ñuy def ci àll beeg yu mel noonu mm-hmm. ah, dañuy wax ne ah ñun kat lii niñ ko daan déggee wala nit ñu ko daan waxee moo tax mm-hmm. waaye lii fu ñu ko expliquer bon xel dina ko nangu waaye euh, xanaa ci question bi ñuy ñëw mooy léegi planification familiale ban ban maanaam ndax am na sax li ñuy wax effet secondaire nga xamante ni jigéen ji dina ñëw def plaline ba pare mu am yeneen lu mu ko jural ci ci biiram. waaw euh, xam nga effet secondaire. Mhm. boo koy natt. Mhm. daanaka lépp lu nit di consomé dafay am effet secondaire. d'accord ba si ceeb bi ñuy lekk sax. am na ñoo ne tey bu ñu lekkoon ceeb da ngay gis ne. Mhm. dañu problème maanaam bu bëree rek waaw ñi sant Fall ak ñi sant Cissé moom xam nañ si dara. ak ñi sant Ndaw. voilà ñoom xam nañ si dara. Mhm. effet secondaire mhm. parce que am na jigéen ñoo xamante ne dañ planning ba planning jeex te dara du feeñ ci ñoom. parce que man ñi may dégg ñu koy xaw a kii yëpp loolu la ñuy wax. lii de baaxul dafay def nii sama biir wala dafay metti sama bopp. wala ñu dégg naa ñoo day metti seen tànk yu mel na ñoom yooyu lañ jàppee effet secondaire kon normal ci lek lek effet secondaire mën mën na baña feñ sax xam nga tay par exemple suma suma tambalé ben mbir luma dal rek dama japp né lool lool la deug la té par pourtant mën na baña nek lool wala mën na nek lo xamanteni mu ngi won ci man mhm. mu yew mhm. ñu dal di japp né ah dafa tombeek li nga xamné mom lay utiliser kon mom lool la lool la wara doon ñun effet secondaire dañ ko dañ ko nat ba xam lan moy effet secondaire bo xamanteni produit bi ñun japp nañ ne produit mënu ko indi effets secondaires yooyu tàggat nañ ci suñuy ndaw mooy ñi nga xam ne ñooy agent de santé yi hmm. pour ñu jël ko en charge hmm. tey jigéen gi même bu ñëwee di jël si planification familiale dañuy waxtaan ak moom lépp dañ ko koy leeral la duñ ko ko nëbb duñ ko ko kiyal dañ ko koy leeral ba mu leer nee ko soxna si yaa ngi jël planning waaw hmm. méthode bi nga jël baax na lii ak lii moo ci nekk lii ak nii lañ koy defee waaye nag su loolu weesoo amaan na lii ak lii feeñ ci yow parce que dañ la koy leeralal ba mu leer bu ëllëgee boo demee toog sa kër jékki-jékki am loo gis nga ne ah lii de sage-femme bi waxoon nañ ma ko parce que lu ñu bañ dañuy bañ loo xamante ni tey loo loo umpule rek mhm. utal ko sikk loolu mhm. moo tax lépp la ñuy leeral ah. voilà mhm. population moom ñu leen di sensibiliser ci loolu foofu daal moom jigéen ñi nga xam ne ñoo ñëw ci dispensaires yi aussi ak yi ñoom tam waxtaan ak ñoom dañ leen di leerale lépp ci effet te bu nekk tamit bu feeñee tamit am na nuñ lay la koy expliquer ba préparé boo dellusee xam nañ lan lañ lay jox parce que tagat nañ suñu agent de santé ci

te ki lay faj boo ko boo ko nëbbee sa bopp. du am faj bi du du du normal. boo ñëwee balaa ñoo balaa ñu laa jox lenn dañuy waxtaan ak yow loolu la ñu naan dañuy waxtaan ak yow waxtaan li ci sa biir li ñuy waxtaanee noonu. du suñu suñu suñu coobare. Mhm. dañ koy waxtaanee parce que dañoo mën a xam. Mhm. exactement ndax yow. Mhm. li nga nekkee ndax méngóo nag li nga xam ne moom nga bëgg a def. bu waxtaan bi jeexee dañ lay say saytu la.

Mm-hmm. donc dix méthodes yi ku nekk mën ngaa tànn ba nga xam ne moo gën a dal sa xel mm-hmm. Mm-hmm. mais bu dalee sa xel it il faut mu méngoog yow sa wér gu yaram bi nga xam ne moom la ci moo tax dañuy jël lépp luy garantie yi nga xam ne moom lañ soxla pour mën la koo jox xel mu dal nga xam ne yow kat boo demee ba sa kër amaan na doo ci am safaan wala doo ci am euh, gàllankoor ñu ne ah waaw soxna si de mën na koo jël mais boo demee it boo gisee leneen loo xamante ne jaaxal na la da dellu dellusiwaat

am na lu muy jeexital xam nga tey bu ñu neen nef day mel ni ñeentu ñoo ko séq bi maanaam mooy jur bu góor bi nga xam ne moom fu ku ci sa yaram neexatul ci moom ngay ñëw parce que moom lañ gënu yaakaar poos bi bi ci topp mooy jur bu jigéen bi mooy yaay bi bi ci topp mooy ki ki nga xam ne moom mu ngi doon nàmp dañuy jékki-jékki arrêté ko nàmpam mm-hmm. ndax am na leneen lu xew ak ki nga xam ne it moom la ñu ëmb am na conséquence ci ñoom. Mm-hmm. léegi lan la mën a def ci xale bi nga xamante ni bi da doon nàmp ñu arrêté ko. Mm-hmm. maanaam jékki-jékki rek nàmpam doyul ñu arrêté nàmp bi noonu. Mm-hmm. waaw xam nga xale yi sax ñoom tamit euh, seen ndeeteel sax. lan nañ ko xayma. ndeeteel bi. daan nañ ko xayma euh, bu mujj bi actuellement li ñu naan euh, mortalité infanto juvénile. si téeméer yooyu jël. ñeent fukk yi. dañuy faatu. est que. dañuy faatu balaa seen juróomi at di mat bu ñuy xaymaa xoolaat ba xool ba xool lan moo nekk ci ginnaaw dañoo jàpp ne tey feebar bi njëkk. Hmm. à feebar yi nga xam ne ñooy kii. Hmm. mooy li ñu naan malnutrition. Hmm. te malnutrition boo xoolee ci tout tànk. fu muy tàmbalee. mooy ci nàmpal ga. malnutrition mooy mooy. malnutrition mooy koo xamante ni dafa xiiboon. boo xamante maanaam kooku nàmp bu doyul mën na koo mën na koo mën na koo sabab toppatoo bu bu doyee di tamit mën na koo sabab pour propriété ak hygiène yi nga xam ne moom lay àndal mooy fa muy environnement ba muy dëkk hmm. loolu tamit mën naa am influence yi ci xale bi sans compter nag yeneen feebar yi nga xam ne day jàpp dal dal xale yi hmm. te loolu tamit programme ministère de la santé bi nga xam ne mooy PEV euh, e hmm. euh, programme élargi de vaccination mu ci def ay jéego parce que tey da ngay gis ne feebar

da koy dimbali ci màggaayam donc loolu noonu tamit situation kër gi mhm. mën na ci influer parce que nàmpal bi d'accord mais bu six mois yi matee nàmpal gi te kese doyut mhm. il faut daa ñu commencer dugalal ko yeneen type d'aliments mhm. aliments yooyu tamit yenn saa bu doolee bi yembut mhm. mën na mën na mën na doon gàllankoor gàllankooru neef bi la rek gàllankoor parce que bu kër gi maam <laughs> macha allah tabaar allah mu bi yëg ko dal ah, donc euh, benn peut-être benn benn euh, niveau doo nga fàtte woon sànq ba ngay lim parce que wax nga ci góor yi waaw ndax góor ñi wax dëgg yàlla seen poche a ko yëg te tawatee aussi même ci biir kër gi hmm. dina am loo xamante ne dina sooxe hmm. Hmm. bu jigéen ki par rapport ak deeteel gi mais par rapport également ak moom même productivité parce que tey jigéen ñi comme ñun nga xam ne dañuy xëy di liggéey te bu ñu feebaree duñ xëy te boo xëyul am na ay entreprise wala ay liggéey yoo xamante ne boo xëyul journée sa poos da koy yëg la donc loolu tamit am na li ci tout temps kii wax nañ si mais société bi communauté bi parce que tey jigéen bu faatu communauté bi da koy yëg dëgg la dana am lu mu yëg ci mm-hmm. ci mbir mi. Mm-hmm. jigéen bu faatoo tey am na lu muy wàññi ci pouvoir d'achat aussi société bi donc tey bu ñuy bu ñuy xayma mbirum santé wala ñuy xayma affaire planning rek dañuy jàpp ne lépp ci wérgu yaram la. Mm-hmm. mais nañ jàpp tamit au delà de wérgu yaram bi am na loo xamante ni même communauté bi da yëg. parce que jigéen bi faatu moom école la woon. école la benn. amoon na. lu lu muy yokkal société bi. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que tey par exemple bu ñu jëlee jigéen buy liggéey bu nekk ci tool ya. Mm-hmm. bu jigéen ko bu faatoo. tool boobu bu koy gérer. bu doon jigéen boo xamante ne day xëy di jaayantu. di yore taabal yore leneen ak leneen ak leneen. bu xëyul liggéey ndax tawat wala nàngam donc kan moo koy gérer taabal googu. Mhm. taabal googu amul woon ñu ngi doon ñëw jënd ci taabal gi amul ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi doon dund ci taabal gi amul na sax mhm. amaan na ñoo xamante ne mu leen bootoon mhm. ci mbirum ci loolu mu doon jaay wala ci la daan jëlee moom di yóbbu këram lu njabootam yóbbu këram ak njabootam donc loolu yëpp ay ay ay impact la yoo xamante ni tey fekkente ne jigéen mu ngi mu ngay nef te wax dëgg yàlla amul toppatoo ba war dina ko mën a dina ko mën a gàllankoor bu baax ci dundam loolu de xanaa foofu la dugg sé rek. ci mhm. santé des adolescents parce que mhm. wax nañ né xalé bi bu nàmpul. Mhm. Euh, ba tabarakallah melni namp bu doy. Euh, lélé da fay feeñ sax ci dundinam. manam dana néew doole moy xibon bi nga wax. xelam aussi du mag ni mo wara a parce que lég lég nga gis ko ci xalé yi. parce que da ngay gis né Euh, xel bi melut ni mu war a mel. beneen bi it cause mooy sa yaay bi la nàmpal nàmp bi doyut nga faatu bàyyi la fi. boobu yow tamit dina def jeexital bu baax ci sa dund. loolu aussi euh, maanaam kon moytu nef mu ngi ñëw sax ba ci dundinu xale bi. waaw mu ngi ñëw ba ci dund xale bi bi mu nekkee xale ba bu dee jigéen la njagamaar bu dee góor mu nekk waxambaane ba muy nekkee kilifa kooku loolu daf koy topp dafa mel ni non da koy topp sax parce que xam nga tey dañu naan famille sookul la famille base la booy tabax tey kër mhm. boo amul base bu baax boo amul fondement bu daanaka li ci kanam du du yàgg waaw ah, lii màbbal kër gi day yomb looloo tax tey jàpp nañ ne xale bu nekk war naa am sañ-sañ yore ñaari way juróom bu góor jigéen bi mm-hmm. Mm-hmm. kon tey bu ñu toogee ñu naan moom de yaay ji new fi am na lu muy wàññi ci xale bi psychologiquement mooy ci bopp bi am na lu muy wàññi ci moom ci cofeel gi muy amanteeg nit ñi mm-hmm. relation ya muy doxalanteeg nit ñi xale boobu mën naa màgg ba ci adolescence am mooy jamono bi muy toll ci njegemaar ak waxambaane jamono jooju day doon jamono bu difficile parce que base bi mu waroon am fondement ba mu waroon am. Mhm. amu ko parce que dafa am dañ koy dañ koy gunge. Mhm. fondement bi am na mais dañ koy gunge. fi mu toll bu ñëpp àndoon ak moom gunge ko du tee la war a mat. matul la war a mat day des parce que position bi yaay mën a taxawee. keneen mënu ko taxawee mën a mottali. keneen mënu ko mottali. Mhm. moo tax nag da di ciy baax ñu ciy bàyyi xel parce tey mën nañ topp suñuy bëgg-bëgg. Mhm. topp suñuy yéene. Mhm. mais lu ci mënti nekk il faut ñu sóoraale tamit ne xale yooyu nga mhm. xam ne ñoo nekk si ñun mooy suñu njaboot gi. suñu responsabilité lañ. dëgg la te tey lépp lu leen dal. dañuy naan ana yaay ji. mais xam nga soxna si li ngay wax li tax mu am solo. mooy def ci am yoo xam ne àggul sax ci yaay ji faatu. mais comme couple bi nga xam ne dem nañ rek ba seen waajur yi divorcé tàggatoo am rek. da ngay gis problème boobu dafay daal di. dafay am dafay am parce que xam nga xale lépp da koy da ñemee too wax de parce que mm-hmm. tollul fa muy waxee mm-hmm. mais da koy yenu te yenu googu mu koy yenu dafay gàllankoor lu bëri di ngay gis ay xale yoo xam ne dañoo dañoo mm-hmm. seen jàng sooxe dëgg la parce que ci situation situation boobu da ngay gis xale yoo xamante ni dañoo dañoo dal de nature jékki-jékki commencé agressif foo leen fekk ñu ngi leen di àtte yenn saa yi ñu yenn psychologue yi bu ñu jegee xale yi dañuy toog waxtaan ak ñoom mais dañuy gis ne problème bi du ci xale bi dafa am leneen loo xamante ni xale bi bu koy dund léegi nag xamul nan la koy génnee da koy génnee ni ma ko sentir rek mooy agressivité bi mooy yenn saa yi sax dañuy dem bay jëfandikoo loo xamante ne dañ koy tere xam parce que justement ñoom loolu lañu gis ne xëy na moo leen di jàppale wayu laa ñu dem di ànd ak seen i moroom ci loo xamante ni ci pant boo xamante ni gënul mm-hmm. parce que amul kenn ku leen gunge amul kenn ki leen tegaat ci yoon donc loolu tamit ñun jàpp nañ ne war nañ see mën a wax war nañ see mën a sensibiliser. Mm-hmm. parce que suñuy doom lañ. Mm-hmm. suñuy rakk lañ donc i faut ñu leen di mm-hmm. teg ci yoon. ci yoon wala nit ñi jàppalee ba teg ñu ci yoon ba ñu àgg fi ñu àgg tey. ñun responsabilité boobu la ñu am. pour gunge xale yi tamit ñu mën a traverser étape bi nga xam ne mooy mbirum adolescence. ndax tey gis nga agsi na ba lii ñuy dund jamono ji mooy xale yi di jël gaal gi bon. di di di dee ci àll bi mhm. moom lu tax bi mu demee bay war a jël gaal bi xalaatul ne moom bu ko xasee ba jël dee la gën a jege ko dund waaw xam nga loolu tamit man nag mbirum gaal gi mhm. dama ciy condamné xale yi mais yaakaar naa ne société bi ñun ñëpp a ci am responsable dëgg la parce que xale bi peut-être xelam mata dina mhm. ba peut-être amul vision bu sori par rapport ak la muy def mais mm-hmm. man jàpp naa ne ñun société bi. Mm-hmm. muy waajur yi muy environnement bi muy ñeneen ak ñeneen ñun ñuy pousse xale yi ci gaal yi. Mm-hmm. su ma jëlee benn exemple rek tey da nekk sa kër tollu ci liggéey toll ci am toll ci mën. nga gis say waajur sa waajur bu jigéen wala sa waajur bu góor chaque jour mu daal di ne kii di aw ma moom yaakaar. ñàkk njëriñ. ñàkk njëriñ deful dara ci kër gi. nangam nangam xoolal sama doomu dëkkandoor bi ci wet gi moom tabaxal na waa këram tabaxal nga mm. nangam est-ce kooku na mu la mu la mu tabaxee est ba que baax est-ce que alal bu lew loolu sax la ko waxul verbalement léeg-léeg dinañ la def jëf ay jëfin yoo xam ne loolu lay wone léegi nag buñ la ci à force ngay encaisser di encaisser mm-hmm. lan ngay gis nga ne xaar ma dem defi ma ni comme ñëpp dem uti mm-hmm. waaye na nga koy utee moo moo moo moo dul yoon bi moo dul yoon bi tamit donc man jàpp naa ne njëriñ loo fekkee daal njëriñ loo fekkee mhm. man jàpp naa ne nit fu mu dajalee cinq cent mille wala six cent mille wala sept cent mille mhm. ba wur ko mën a fay borom gaal ne ko kaay yóbbu ma mhm. yaakaar naa ne six cent mille sept cent mille yooyu boo ko investir ci dara même bu dee taabal wala boutique mbagg sax war nga cee mën a liggéey ba génne mais nag man soxna si man dégg naa ci wax yi tamit ñoo xam ne xëy na munoo ne dëgg la wala munoo ko weddi waaye am na ci ñoo xam ne seen i waajur ñooy teggi ay nat wala jaay seen i ci jox leen pour ñu dem ci lu mel li ma la wax rek ñun ñëpp ñoo am responsabilité responsabilité boobu mooy dellu si waat ba ci ki nga xamanteni en général borom gaal gi kilifa lay doon bu nekk xalé parce que amna lo xamni xalé mënu ko diriger donc ki nga xam mo yor galam di encaisser euh, xaalisu xalé yi pour dig ne daf leen di yobbu kokku it bon

kër gi de boo nekkal taawu kër gi moom boo amul dara moom. am na ñoo xamante ne sax newuñu sax taaw. wallaay ndeysaan amuñu benn position ci kër gi mais le fait que xëyuñu ñu rek. Mm-hmm. lépp lu xew ci kër gi ñu ne mooma. te bu boobaa nit ki bu encaissé frustration benn yoon ñaari yoon ñetti yoon bu yàggee tuuti. Mm-hmm. day fippu. donc fépp googu nag moo leen di yóbbee mbirum mbirum mbirum gaal yi donc ñu sensibiliser waat xale yi mm-hmm, te xam mm-hmm. leen ne lu ñu fu ñu mënti nekk bu mm-hmm. buñ lu ñu fay liggéey buñ ko liggéeyee fii am ko wallaahi wallaahi bu ñu góorgóorloo tuuti mën nañ tedd fii nga xam ne fi lañ toog mais soxna si li nga wax dafa am solo parce que yow boo dee ndaw nga góor góorlu ba dajalee benn cinq cent mille boo góorgóorluwaatee rek am un minute wala lu ko wees te loo xamante ni loolu defe naa mën na tàmbali boo ci tàmbali bu ko yàlla barkeele rek a gis ci sa bopp su ko defee loolu moom ñu ngi ci ñu ngi ci euh, bàyyiloowaat xel suñu mbokk ndaw ñi parce que ñun ñii di wax nii mm-hmm. euh, ay jeunes lañu comme ñoom wax dëgg yàlla te itam li ngay gis ñun ñi kenn gën ñoo bëgg a tekki. Mhm. bëgg nañu am ay milliards comme ni ko nit ñi amee. Mhm. waaye nag awin week utin wi. loolu moom lu jar a bàyyi xel la. Mhm. su ko defee ndaw ñi il faut ñu dellusiwaat parce que dañoo wax ne alal du lu ñuy jaamu parce que xaalis bi mën naa bari waaye doo ko fekk. bari na ñoo xamante ni bi tabaarakallaahu li ñu yor ci alal kenn mënu ko xayma waaye ñu ngi tëdd ca hôpital bi tërin woo xamante ni tey seen alal jooju mënul leen dara. amna luñu luñu manké lo xamanteni bi buñu ñu gisoon ku ko jaay ñu jël seen alal yépp jox leen ngir mëna jotaat seen wër gu yaram kon nak euh, tabarakallah alal du lu jaamu mm-hmm. fofu faaw ndaw ñi euh, wat ci bu baax baax soxna si euh, waxtaan bi amna solo mm-hmm. waye soxna Asi mu ngi signalé ñu waxti bi dab nañu mm-hmm. ana ñu bayila rek nga indi sa kàddu yu mujj inshallah waaw jërëjëf jërëjëf imam waxtaan gi comme ni ko amna solo am solo. diir mm-hmm. bi gàtt na waaye jàpp naa ne mm-hmm. information yi ci war a jàll yu mm-hmm. bëri jàll na. Euh, di remercier waat. Euh, suñu kilifa yi mm-hmm. mooy kilifa administration bi mais kilifa diine yi également ñi nga xam ne mm-hmm. ñoo ñu gunge chaque fois ci li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne moom lañuy ñuy def mm-hmm. euh, duñu fàtte tamit euh, suñuy waajur lim tudd ñu leen woon te njëlbeen waaye balaa ñoo tàggatoo foofu ñu tudd leen parce que tey bu ñu toogee fi ñu toog accompagnement ñoo ñu gunge donc gunge googu ma doon waxtaan ka ci xale yi ñun parents yi suñuy parents tamit yaakaar naa ne bu ñu jàppale jàppale seen i doom mhm. ba ñoom it ñu mën a àgg fi nga xam ne foofu la ñuy séntu ci ñoom mhm. euh, du ma mën terminer également sans remercier yow mhm. mii nga xam ne yaay représentant au CRST parce que cadre des religieux pour la santé et le développement am na ci lu bëri loo xamante ni gind nañu ci ci mbirum santé mhm. ak surtout ak sensibilisation bi nga xam ne lañ nekkee ci communauté bi mhm, mhm. sànq si say wax yaa doon expliquer euh, da ngeen di dem fenn waxtaan fa ba noppi ñu ne ah ñu ne wuñ ko woon ak ah, docteur dem nañ fa ba wax fa. ba wax fa dégg dégg bi desoon dëgg la. dégg dégg bi donc CRSD mënuñu len euh, remercier. parce que bo leen remercier sa da koy xeeb. parce que la jégo jéego yi ñuy def ci terrain bi. Mm-hmm. ñu xam nañ ko té ñu ci jot. donc dañuy ñaan rek mm-hmm. renforcer collaboration bi ak ñoom. te ngeen yeggali ñu également suñu suñu ñu ak suñuy remerciement sen mm-hmm. sen sen sen seen. Euh, kii sen sen chef. macha allah waaw kay ñu remercier wal également équipe bu RMD. RMB TV mm-hmm, euh, ci taxawaay gi ci mm-hmm. encouragement yi. Serigne Ibrahima Ba ndeysaan mooy directeur mais moom fu ñuy tourner les CRSD mooy bàyyi yitteem yëpp. ñëw toog. macha allah ànd ak soxna Asi ndeysaan sunu. dañoo woyof rek dañoo woyof baax la baax la baax a baax. soxna Ramatulaye yow itam ñu ngi lay sant di di la gërëm. yow itam nak di eh, di la jotal ngërmande ak tiant ak ñaan wa CRSD nga yobale ñuko fofu foofu ci DSME ki nga xam ne mooy seen njiit monsieur Doucouré ñu wax né and bu amé eh, ku nekk ci jariñu eh, kon nak mbokk yi nga xamné ñoo ñu doon top fi ci seen seen télévision RMB TV euh ñu àndoon ak yéen ci seen émission lépp diiné wande it tabarakallah and ci ak CRSD tay ñu amono gan muy soxna Ramatoulaye Camara teew leen fii ñi xam ne mooy DSME euh, di benn kuréel ci ministère de la santé kon nag loolu lañ leen indiloon tey ci waxtaan bi waxtu bi moom mi daf xam naa incha allah soxna si dañ koy lebal rek parce que fi ñu tolloon it baax na bu beneen yoonee incha allah a xuus dafa mel ni fi ñu demee ba muy gën a neex ci la waxtu bi demee kon ala kulli xaal ñu sant bu baax di leen ñaanal incha allah ñaan yàlla ñu defalaat ñu euh, dig daje ci beneen كده إيه سين إن شاء الله بدينا سين بوك سين خيط إمام أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما ذلك على الله العزيز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي cadre des religieux pour la santé et le développement du Yunguti Walum Espace espacement des Naissance, Manam Moitunef, Molendi santé de la mère et de l'enfant